Khalifa Ababacar Sall le président Khalifa Ababacar Sall ngi noonu yegsi na mingi noonu di nuyonteeg ak ñi nga xamante ni ñooy askan wi. ñu ngi seen le président Khalifa Ababacar Sall ngi noonu di nuyonteeg askan wi di saafonte ak ñoom mi ngi ànd ki nga xamante ni mooy maire de la ville de Dakar monsieur Barthélémy Toye Dias fii biir Thiénaba Gare. mi ngi noon di nuyonteeg le chef de village mu koy dalal mu koy dalal. chef de village a ngi noonu di nuyu monsieur Barthélémy Toye Dias. Sénégal boo xamante ne nii justice bi ñëpp ñoo ciy bokk yëpp Sénégal boo xamante ne nii baykat sàmmkat nappkat dinañ ci seen bopp Sénégal boo xamante ne nii dootuñu tëj journaliste dootuñu jàpp opposant di ko tuumaal di ko tëj kaso Sénégal boobu dina fi jeex pour mu jeex nag il faut que le président Khalifa Ababacar Sall def ko premier ministre. président waxtaan ak ñoom. wala ñëpp toog toog. na ñëpp toog. ngeen toog bàyyi président na ñëpp toog leen saisi ngeen toog. le futur président du Sénégal monsieur Khalifa Ababacar Sall ngeen gën ma koo xam. ci ngor ak ay teggi ci jàmm ci réew bi neex gi ci dund réewam. ayca na ñëpp ñu euh, ba léegi ñeen fàttal ni ñu ngi ci fii ci canabagar Gare nañu Thiès ñu ngi fii ci Thiénaba Gare ànd ak euh, président Khalifa Ababacar Sall ak waa coalition Khalifa président 2024 comme niñ leen ko waxee woon rek xaaral ñu dékk micro kooku. fii mooy département bi ndax tey ñun li ñu xam mooy teraanga nga lebal nit ki teraanga mu delloo la ko kon yaakaar naa ne tey président bu deful woon lii ah man du ma am lu ma neex keneen ak keneen du am lu ko neex waaye kontaan nañu ndax liggéey bi ànduma ko mag man dong ndax monsieur Samba Diagne ñi suñu coordinateur tey ci suba laa ko naan nag ma jéggal baal ma àq ndax ànd ak jigéen dafa jafe ndax liggéey bi metti na ku ne xam ne ne tey liggéey ci zone yi dafa metti ndax doo am ku la jàppale da nga ciy wéet torop da ngay organiser dara sax pour nit fekk si la ci sax problème la mais ñun président Khalifa jaral nañu ko ak moom dañuy dem ba jeex ndax liggéey bi dañ ko ànd ak ay Aysatu Ndiaye mu ngi nekk cawaare moom tam ana Aysatu Ndiaye femme yooyu dafa jar ngeen jël seen loxo yëkkati ko ci kaw ndax dañuy jël seen xaalis ak seen lépp di ko ci def ndax Khalifa ku koy bëgg danga koy bëgg ndax jikkoom ak ngoram ndax ñun suñu profil dafa jaay boppam macha allah yaram ak tegginam ak liggéeyam bu rafet ak ay projet am yu baax kon tey kii nga xam ne tey jii mooy président xalifa ku ko jàppale jàppale nga àddina kii ne day liggéey ci suuf liggéey ci ndox liggéey ci nit yaakaar naa ne kooku defal na lépp boo nee suuf wax nga lépp boo nee nit nag moom kon yar nga nit ñi seen yar ak seen teggin macha allah te loolu la ñu xam lool la ñu président xalifa yaree di sant suñu borom kër yi borom këru caat dafa ñëw gunge si ko sama borom kër soo ba tey mu ngi yor mbib bi moom tey fii da daan siège fi ci école bi mais dañ ko génnee ndax lan ndax politique. kon yu mel noonu dafa jar ñu koy wax ndax ñu ñun itam dafay am lu nekk suñu xol bu ñu jàkkaarloo président dañoo war di ko wax ñëpp di ko dégg ñëpp di ko xam di sant ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal muy tey ji ñii ma àndal ñoom ñëpp macha allah ndax nag honorable député Aminata Diallo moo ma fi dugal ci lii moo tax ngeen gis badge yi ndax dañ ne ku fàtte démb doo gor kon honorable ñu koy sant di ko gërëm ñun dañoo bëgg xalifa tey yàlla tax waaye grâce à honorable kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant mënta ñàkk waaw gërëm naa leen sant naa leen kii nag mooy Caat Njaay mooy bind mooy def lépp moom laa boo Laurent waaw ji moom ñëwoon na fi fekk se nañu ñëw na ba kër ma Lamine mais kër ma Lamine tey woowu ma leen waxuma leen dara ndax temps bi dafa ngam hmm. monsieur le maire Bart nuyu nañ la ziar la ndax yow fii da nga fiy am ay soppe macha allah kon loolu dañ ciy kontaan te gis nañ ñi nga jàppale président Khalifa gis nañ tànk yi nga ko taxawoo loo wax suba ba ngoon ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis kon nañu xam ne yéen tamit du ngeen wéet ci loolu du ngeen ci mës a wéet ñu nag yéen ba géej gi fer ñu nag yéen ba géej gi ñeer te xolal ca kaw ca kanam suñu maire yi toog nii ay taabul lañu yore damaa nekk ci conseil bi lu leen laay kaas nañu defaral maire yi nangam léegi nag tonton xalifa ñëw na gisal na boppam dañoo am rapport bu ñu def pareegul dañoo fomoon élection yi ñu bàyyi ko wax naa ko présidente wejji rapport boo xam ne bu ñu ko joxee bu ñëwee suñu leader du làmbatu parce que dafay daj ndax ñun xam nañ li fi nekk dañuy dem ci biir di xam lan moo nekk ci biir ñu xam ko def ko suñuy rapport bind ko ndax ban koo jagle suñu président parce que dañu am yaakaar ne moom mooy toog kon président Khalifa loolu nañ la ko bàyyee te bés bu ma nee audience damay ñëw ci président Khalifa na ñu xam ne rapport boobu laa lay andil mooy commune Thiénaba li nga xam ne naqari nañu ci Thiénaba li nga xam ne bëgg nañ ñu defal ñu ko ci Thiénaba ak leneen ak leneen yoon yaa ngi tali bi kenn mënta ñëw di dem parce que yoon yi yàqu na amuñu lu fi luñ ko mën a defaree ndox surtout ku ne xam ne ne commune bu Thiénaba amul ndox kon nañu utal ndox yu doy nañu dugg ci ladda guerre bi tonton Xalifa mënumaa wax lépp ndax sama xol dafa sedd kontaan naa dama lay bàyyi rek ndax damay tënk xam naa ne sonn nga te yërëm naa la jërëjëf. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di commencé nuyoo bi Serigne Thiénaba Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla may ko gudd fan. di nuyu waa askanu Thiénaba yëpp ñëpp jàppale nañu président ñu ngi lay dalal di la wax. dalal ak jàmm di nuyu ñi nga àndal ñu ñëpp madame sàmm wax na lépp wax dëgg yàlla aw aw ma aw ma lu ma ciy teg di la ñaanal rek xam naa ne la victoire est proche ñun ñëpp nañu nañu nañu gën a takkuwaat rek góorgóorlu gën a gën a taxawaat monsieur le maire ñu ngi lay nuyu baax ni ko ni ko madame Samb waxee da nga fi am ay partisans wallaahi da nga fi am ay soppe ñu la bëgg kon boog ñoom tam ñu ngi lay ñaanal nga gis ko nga ñàkk ko gis ñu lay ñaanal. merci beaucoup di maa ngi ziar ñëpp. voilà ah, asalaamaaleykum bokki Thiénaba maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wéyjur suñu kilifa sëriñ Thiénaba di ko ziar di leen ñaan ngeen jottali suñuy ziar ak suñu ñaan ci weer wu wi ñu nekk. muy borom jàngu bi muy ñun ñi nga xam ni ay jullit lañu ñoo ngi ñaanal ñëpp ñu dugg ci jàmm génn si ak jàmm loolu moo am solo ah ma di wax nag ci turu suñu délégation bi bu Thiès bu national bi ñëpp que ñu ngi jéggalu ci guddee bi parce que ñun ñëpp xam nañ ni weeru koor la te heure bii nit ñi dem nañu doge ñu ngi naafile ji donc fekk fi nit moom day jafe moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jégalu suñu mënoon dañ fiy teel egsi comme ça ñu mën toog wër dëkk bi dem ziar sëriñ bi def lu ne mais loolu lépp mënul ne ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di leen engagé rek ngeen waajal élection yi di xam naa ak ñoom wéji ak waa département bi di ngeen gën a waxtaan daañ leen jàppale bravo à toi bravo à toi ay jigéen yu mën góor ngeen seen càmmil yi na ku baax na moo tax ma ni la ci yow ci yow doon mujje li nga wax dañ ko dégg ñàkkum ndox mi moom fal ñu rekk mu dakk ci kàttanu yàlla parce que nag fii dëkk bu mag la dëkku diine la warul ñàkk ndox <laughs> waaw d'accord mais waaw mais léegi léegi fulla fulla bi mooy 24 mars ngeen voté xalifa Sall maire bi jóge fi yéen ngeen toog ñun ñoo ànd ak yéen liggéey maa ngi leen di gërëm leen sant. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ

metti na yaay booy yi sonn nañ dañuy xëy fajar di wutum ndox bëgg koo am te duñ ko mën a am maire bi war leen a dimbale dimbalewu leen saa bu xëyee di leen xas maire marché baa ngi nii ñaata at toog na ko fi musu fee defar dara bi marché bi demee ba zeng yi commencé wadd ci la ñëwaat ñu ne ko carrément xaalis bu maire bi xaalisu marché bi jox nañ ko ko ne ko carrément defaral marché bi mu normal ñu ne ko defaral marché bi mu ne carrément xaalisu marché baa ngi nii sama loxo mais du ma ko defar. maire bi wax loolu. maire bi wax loolu. mu ne carrément lu tax loolu. ah lu tax loolu parce que nee na waa Thiénaba dañoo soxor. mais yéen woo leen presse bi wax ak àdduna pour ñëpp dégg leen président dégg ko keneen ak keneen dégg ko. kan mooy wax. kan mooy wax ñi war a génn wax du wax ñi war a génn war a génn war a taxaw wax du wax amuñu fitu wax. kon daal su ma la déggee loolu moo tax ngeen am yaakaar ci président Khalifa Ababacar Sall. moo moo ñun fi mu toll nii suñu suñu mbëbët lenn dong la ku ñu soppal suñu réew. parce que dañoo sonn dund bi sonn métti na fajo mi métti na ah da ngay bëgg a fajo doo am loo fajo da ngay bëgg a dund doo am loo dundee da ngay liggéey sax doo am ñi nga xamante ni liggéeyu ñoom ñooy toog di am ñun ñu ngi baadoole yi ñun ñooy toog di sonn. te loolu dafa war a jeex toog muy dox moo war a jeex. waa Aliou yaa ngi ci télé Sénégal TV jàppal ni aduna dégg na la léegi dernier moo bi lan lay doon. waaw li may wax daal mooy ñëpp laa koy wax li may wax daal mooy nañ leen jàppale nit ñi te yàlla tax nañ leen jàppale nit ñi te yàlla tax parce que nit ñi sonn nañ nañ leen jàppale population bi ñu dimbale yaay booy yi yaay booy yi sonn nañ yaay booy yi dañ leen a war a dimbale ñun góor yàlla yi garaawul mais yaay yi nañ leen dimbale. yaay boo yu sonn nañ nañ leen dimbale te yàlla ji tax parce que dëkk bi ñun ñoo ko moom suñu dëkk la manqué wuñ dara am nañ pétrole am nañ gaz am nañ jamaa am nañ or am nañ lépp kon dara waru fee manqué. mais fii na ñoo xamante ne dañuy dem ci bureau di voté da bëri na ñuy voté fii. bëri na du fi jeex jeunes yi est-ce que am ngeen ay carte bu bu baax eh booy yi ngay gis fii xaaj bépp dañoo yor seen i permis ñu ngi yor seen i permis bëgg a dawal mënuñoo dawal alkaata yi sonal leen ci tëli bi. dañuy bëgg liggéey bëgg a daan doole. mais jeex na mën nañu avenir u dëkk bi mi ngi seen loxo ci seen carte de la demee nag leen kon le ñaan yàlla la yàlla may ndam. amiin amiin décourage gars yi jaa